lii moo tax may leen du dellu gannaaw ci li may jëf démb jël naa huissier jox naa ko ne ko na signifier propriétaire bi ne ko à partir de 30 du 30 janvier j'arrête le contrat 30 janvier j'arrête le contrat man kenn du ma napp kenn du ma noggatu na leen état nag yóbbu encadré leen ñu dem taal Ziguinchor suñu bëggee bu dee mën nañ ko waaye 30 janvier mairie bi dootul fay contrat location immeuble étudiants yi nekk Ziguinchor bu leen locataire bi génnee ba pare ñaar ba ñett moo mun a am may dalal xelu Ziguinchor étudiant Ziguinchor yi ne leen duñ leen bàyyi waaye dootuma luwe immeuble boo xam ne dañ koy utiliser ci wàllu politique bu ñu génnee dinaa signé beneen contrat bu bees ak borom borom borom kër gi bu dee nangu na ko bu ko nangul dinaa jël beneen imo bu bokkul ak boobu waaye immeuble bi may jël étudiants dootuñu ko gérer mairie Ziguinchor moo koy gérer dinaa fa teg un gérant boo xam ne c'est un salarié de la mairie de Ziguinchor commission sociale mairie Ziguinchor bi moom mooy superviser nu muy doxee. étudiant boo xam ne nekk nga ci jafe-jafe soo ñëwee déposer sa dossier social ñu càmbar ko ba mu leer ni méngoo nag li ñu soxla ñu dugal la ci immeuble bi waaye balaa ngay dugg di nga signé benn charte mooy immeuble bi tere nañ fa lépp loo xam ne dañ koy jëmale ci mbirum politique immeuble kenn du ko utilise pour def des combats politiques da nga koy signé bis boo violer loolu ñu génn la ci immeuble bi mais dootuñu jël immeuble di ko jox ay étudiants yoo xam ne dañoo am fu ñu bokk bis bu maire bi changé ñu andi fi ay coow yoo xam ne jaru ko loolu duma ko nangu du Ziguinchor du du dakaar du Ziguinchor du euh, du Dakar du Saint-Louis du Bambey du Thiès gi ñuy waaj a defar loolu dootuma ko nangul kenn.